Birame Sy Diop euh, li nga wax ni yàlla na dugg ci nopp kilifa yi. Mhm. kilifa yi nga xam ñoom ñooy euh, décideur politique yi. Mhm. ñooy suñu ay ay gouvernant mhm. ñoom ñooy joxe ndigal ñooy joxe marché yi. Euh, yàlla na dugg seen ci seen i nopp ñuy fàttali ni mbokk mbokk internet ñi ngi ak monsieur Djibril Diop di président parti Front pour la République du Sénégal. bokkoo ci mbootaay bi bi ñuy wax. Yewwi Askan Wi nga nekk ci membre fondateur. ñu wax tuuti ci wàllu politique. démb. Mhm. dañuy ñëpp jot rek ne Mimi mhm. xam nga euh, deuxièmement que du lu lu ñu war a rafetlu sur le plan politique parce que dàq moom moom mosuma ko d' accord si el mais ñoom Mimi waroon na ko xalaat parce que d' abord depuis que bi mu amee ñoom problème commencé ne leen non inscrit la man si la njëkk wax ni li ñuy mun muunee naan article soixante dinañ ko évoqué te dinañ ko génnee assemblée c' est de bonne guerre c' est entre eux. bokk ñu gis-gis si wàllu politique mais nag pour toucher institution bu toll ne assemblée nationale nga xam ne toujours dañ koy jéem a fragiliser député bu demee ban war ko accompagner dimbali ko si xeex politique bu ñëwee rek dañuy appliquer certains articles parfois di leen def tout ba ñoŋal article boobu pour génne ko day dana indi faiblesse su assemblée nationale surtout assemblée bi dafa soxla ay nit yu am expérience ay nit yoo xam ne nekkoon nañ si ay institutions pour ñu produire des lois parce que assemblée nationale production de loi la. parce que war na am ay député yoo xam ne dañu war a def ay euh, proposition de loi war nañoo mën a càmbar lii gouvernement bi liggéey mais ku mel ni Mimi Touré boo ko génnee assemblée nationale remplacé ko koo xam ne mun na doon li yàlla xam doy na dayo bi Mimi Touré di am pour mun a permettre au Sénégalais mun a permettre ministres yooyu di ñëw ak ñi ni dénk alalu réew mi ñu mën a moytu ak yooyu day faciliter léegi tâche boo xam ne ñeneen pour ñu mën a def politique ak loolu moo tax du ma rafetlu ku mel ni Mimi ñu génnee ko assemblée parce que luy yokk assemblée la si expérience si expertise parce que il a été premier ministre du Sénégal président de institution te dina mën a jàppale député yi si expérience boobu mu am kon bu ñu ko génnee man damay jàppale ne c'est des faits politiques moom la ñu utiliser waat pour génne ko assemblée. Euh, mbokk internet yi ñu fàttaleen leen itam euh, Mimi Touré euh, moo nekkoon ki nga xam te moom la waa APR wala boog ak benn bokk yaakaar jiitaloon pour ñu dem ci élection député yi bu ñu ko tabbee ba pare ñu dem ñu ñu dégg dañ ko ne Mimi nee na dañ ko diggoon mooy nekk président assemblée nationale. Mm-hmm. bay demee ba ci biir ñu war ko jox ko keneen muy moom El Hadj Mamadou Mam Mam Diop. Mm-hmm. ñu ñu ñu jox ko ko moom tam ci la ci la géddi. Mm-hmm. ne moom. préfère elle préfère mm-hmm. dootul bokk ci groupe parlementaire bu benn bokk yaakaar waaye dafay nekk euh, non inscrit mm-hmm. euh, ci loolu nag euh, ci ba mu defee non déclaré non inscrit boobu nag mm-hmm. pour waa AP waa APR ak benn bokk yaakaar daf leen déclarer la guerre. moo tax ñoom tam ñu ñu ñu def seen kuréel. man ko dàq ko démb ci bureau bureau assemblée nationale. mais bureau assemblée nationale boobu lay. APR wala boog benn bokk yaakaar ëpp ëppale wuñ ëpp ñu fa. ëpp ñu dëgg la. donc bu fekkee ni Mimi daanu na. Mhm. am na ku sotle waa. benn bokk yaakaar. Mhm. te ñëpp ñu ngi joxoñ waa wàllu te it bi ñu leen joxee ñoom nee nañu ñu na waa wàllu ñu ngi gën a jege benn bokk yaakaar ñu ngi gën a jege APR euh, ñu nga gën a jege Macky sàll loolu teyal sa xel est que amul euh, benn deal bi gars yi di wax naan am na ci diggante ñoom surtout waa PDS. ak Karim Wade pour mu ñëwaat ci élection yi wala yooyu te xel tey na ci yow ban appréciation nga ci. waaw man dama toujours wax nii euh, li ñu daal ñun Yewwi ak Wallu dafa seddul parce que à l'époque bi ñuy construire coalition intercoalition bi bokk naa si ñu ko bañoon. yow bëggoo woon. Euh, dafa bari parce que y ñu nous nous sommes vingt sept entités mais douze leaders la ñu woon si biir douze yi. sept ou bien quatre rek ñoo ñoo ñoo trois ñoo si nangu initié ànd ak ñoom. ànd ak waa wàllu quatre wàllu. ça ça produit effet yi mu produit tey on a on vu te li ñuy dund mooy wàllu sa proche bu day gën a jege ji Macky Sall parce que ils ont fait motion de censure bi d'accord aussi mais ils ont appuyé bii tamit bu ñu appuyé kon seen el boobu loolu ñu gëm la ñu commencé def mais loolu du politique politique mission la politique mën nañ si jaamu yàlla. du politique rek foo jekkoo wala fu la sa moroom jekkoo esprit de vengeance ñëw mën nañ gis ni c'est que Mimi bi mu nekk ministre de la justice coow li amoon ci moom peut-être que ñoom mën nañoo xalaatee noonu duñ ko jàppale parce que Mimi du sans euh, bataille la sans merci contre ñoom ak Mimi Touré parce que ñu ko toléré mais nag lu dem ba assemblée nationale bu demee ba loo xam ne c'est des question de principe c'est question de yoo xam ne pour loolu. monsieur yëpp dooguma la ñu fàttali que ni li ngay li ngay li noonu moo nekkoon diggante waa PDS. ak Mimi ak Mimi Touré euh, mhm. bi nga xam te ne bi nga amoon problème yooyu problème mu ak yoon. Mhm. Mimi Touré moo nekk ministre. de la justice voilà. moo moo waral nag tey esprit de vengeance boobu day ñëw moo tax Mimi du am sens foofu même bu yeewi braqué ànd ak moom sax PDS day utiliser cette arme et c'est pas bon pour ce pays. dañuy toll fenn foo xam ne esprit de dépassement dafay am si dëkk mooy d'abord que assemblée nationale warul nekk chambre d'enrichissement warul nekk moomeelu kenn lu mu bëgg jàllale rek député yenn député yi ku nekk def ay miicoo mbaalo ba loolu jàll. loolu day gën a loolu amoon assemblée bi man biñ déparé laa na leen dina nekk assemblée boo xam ne ngeen baal ma mooy gën a nekk assemblée bu yoo xam ne histoire du Sénégal danañ ko regretter. ah parce que d'abord. député yi dafa am fenn foo xam ne def de Sénégal daf ko doon gagné mooy ñëpp dañu amoon yaakaar si ne am nañ quatre-vingt am na benn kii ma ne leen y a beaucoup de députés yoo députés yoo xam ne ñu ngi à l'Assemblée nationale ils vont la l'affaire du pouvoir parce que d'abord ni conditions yi ni ñëwee la parce que am na si ñoo xam ne foog ñoo dinañ ak si assemblée taux bi ñu am bu ñu demee ba si biir conditionnalité ak tamit formalité la ni maanaam eh ñoom ay remplaçants exactement ay remplaçants yu ñëw ay députés yoo xam ne musuñu xalaat seen àdduna. kenn xamu leen kenn xamu leen et puis amuñu même bu fekkee ne sax yaa ngi doog a ñëw formation bi war parce que d' abord euh, coalition yi leen indi dañu war a chaque fois di former les députés leur rôle à l' assemblée nationale c' est pas que la politique d' ailleurs que politique leen indi mais li leen indi dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg mooy d' abord produire des lois ak càmbar li gouvernement bi def ak nekkal fa askan bi pour askan wi mais pas pour nekk fa seen bopp. day dem ba benn moment sax ab député au Sénégal dafa dem ba amatul njariñ boo xool kenn du la wekk parce que dañ naan leen tàccu lañ fa nekkee ak lu ñu leen def loo ñu def ko mais effet bi am si Mimi Touré bettul warul bett kenn parce que ñëpp xam nañ ni boo nekkee si majorité boo demee ba nekk noonu majorité ba moom yow yaay nit ki ñu war a rey moom moom man bu man li ma ko bu doon mën a à sa place depuis bi ñu ma xeexee démissionné du ma xaar sax lii am na ñoo xam ne dañ koy man leen non parce que dafa am nu nit toll bul nangu mukk ñu lay boddi te yow xam nga ne deux tendances nga am yoo xam ne duñ sans merci la yaa lu côté pouvoir ak ñeneen ñoo xam ne dañuy gëm ni yaa sànq seen candidat waaw ñooñu boo jàkkaarloog ñooñu ku nekk lu muy wut mooy ku nekk day wut pour rey la kon donc lii waroon na ko xaar PDS nag duñ ko mës a may fu muy yekkee nakam toujours esprit de vengeance mooy ñëw moo tax waru woon moo tax PDS bu état bi defee loolu tamit nañ at nañ xaaraat leneen ci assemblée bi. assemblée bi lañ gis ay weqe assemblée bi gis lañ gis député yoo xam ne li xew ci motion de censure bi ma j'ai dit que c'est prématuré gouvernement bi doog politique générale bi premier ministre bi doog a présenté politique générale commencé gul même ci biir ci biir sax débat yi da gis kenn koo xam ne day wax ba pare ki gañ ministre bi ne ko bëgg nañ nga def lii. te moom ma nga bëgg a daane gouvernement bi mooy d' abord député yi kenn préparé wu leen beaucoup de députés yoo xam ne surtout de l' opposition amuñu préparation parce que pouvoir bi lu ko arrangé mooy fexe ba lu mu indi mu jàll. opposition bi warul bàyyi rek lu ñëw jàll. bu jaarul yoon war na ko mën a nekk peuple bi kat lii bañ ci mais dinañ dem ba benn moment day doon sax assemblée boo xam ne day mel ni bu amul njariñ te commencé na ko. commencé na ko nit ñëpp ngi commencé di ngaa ñi assemblée nationale bi te yi xaar yeneen effet dinañ ñëw. waaw baax na ñu ñu xaar ko ndaxte itam euh, ci ni ko doon waxee Mimi ture euh, moom jël nañu fi jébbal ko yoon. Mhm. donc ñu xaar yoon euh, lu muy décidé. ci dossier boobu la. Mhm. benn bi ci jur ci wàllu wàllu wàllu politique yaa ngi bokk Yewwi Askan Wi. pour mhm. que démb kenn ci yéen muy Sonko ak parti Pastefam def meeting bu rëy. ca Kër Massar. meeting bi xool nga dafa nekkoon ci mbooloo ak kàddu yi fi jib. loolu loo ci jàngat. waaw xam nga meeting moom boo ko organisé au Sénégal surtout ku toll ni Ousmane Sonko et ses sympathies mën na dépasser sax mbooloo boobu mu am parce que nañ ko nangul ni yàllaa ko ko may parce que ku ne Ousmane Sonko mu euh, euh, amul une autorité politique ou autorité du autorité politique bi wax yaa ngi nax sa bopp. benn am na peut-être que man effet meeting bi toujours man discours yi laay déglu parce que discours yi ñoo am solo parce que toujours dañ naan réew bu demee ba tollu fenn dafa laaj. une concertation am surtout classe politique bi waxtaan société civile bi ak euh, accompagner ak euh, les acteurs acteurs sociaux yi muy religieux yi ak euh, kilifa diine yi kilifa aada yi mais bu ñu demee ba toll si réew moo xam ne si confrontation lañ jëm parce que le Pastef ils sont très intelligents intelligents parce que d'abord seen leader dafa am dossier xam nañ fi dossier bii mu jëm fa mu jëm fa mun na bañ a baax ci moom il faut que ñu sonde xool nañ leen toll préparer la bataille maintenant man lu may conseil moom frère ami Ousmane Sonko mooy d'abord la may wax moo si nekk ay loi wu dëkk bu fekkee ne da nga bëgg ne suba danga nga leen war a jiite te loi yooyu nga war a sukkandiku pour jiite réew mi buñ la wooyee wuy jin parce que d'abord ñëpp daan wax procès procès mu ne buñ ko bu procès amee mu dem kon ñu koy xelal naa ko bul wuy ji ñooñu ñu ngi koy dugal ci guuta goo xam ne baaxul si Sénégal te baaxul si moom mooy man musuma gëm dossier aji saar yàgg naa ko wax nee naa leen nag dina toll fenn foo xam ne dafay am maturité day am dayoo leader day am foo xam ne bu fa tolloo mooy mën a calmer mais nag Sénégal dafa mel ni suñu yenn kilifa yi ñu ngi seetaan. suñu yenn kilifa na kilifa diine am na ci part de responsabilité kilifa aada yi am na si ba ak ñi war a wax parce que bu ñu demee ba réew ñi warul wax rek ñooy toog ci télé yi di wax ñi war a wax noppi. te musiba ak réew mu tàkk la jëm wala réew mu am ay daay te man dama gëm ni Sénégal am na foo xam ne bu fa daan toll kilifa yi dañuy jóg wax waaye nag bàyyi ba war a atte xeex avant muy am bàyyi ba xeex ba am nga ne atte nag dootul amati njëriñ kon yow bokk nga ci ñi jooy ko jooy parce que moom bu doon bu doon moom a tey jii wax na mais dañu gis ni suñu kilifa diine ñëpp noppi nañ kilifa aada yi kenn noppi na même acteurs yi ñuy wax euh, yi ñu doon wax naan dañu am voix comme ku mel ne Alaaji Alaaji Mansour Mbaye ak ñeneen ñoo xam ne sax dañ leen tax du pouvoir dañ si am part de responsabilité parce que am na seen kàddu fu mu doon rek mais bu fekkee ne dañuy topp ne te ñaar am na si réew mi boo nekkee opposition yaay subir lépp boo demee siyaari sëriñ yi da dem ba sax yow doo bëggat gaaw a dem boo toogee discours bi ñu lay tenir foofu lay metti parce que dañ naan la réew mi jàmm la bëgg réew mi fexe leen ba jàmm am pousse bi mu réere bu waa ji ñëwee ak si ñu ne ko ñu ngi lay gërëm di la sant ndax liggéey bi ngay liggéey yow koy doom lañ la jàppee si kër gi te réew dafa am foo xam ne kilifa yu yor euh, social bi ñoo xam ne acteurs sociaux lañu ak ñoo xam ne dañu leen xamee ci société civile waruñu am xaj ak seen waruñu far dëgg lañ war a far mais réew mi dem na ba benn moment dafa mel dañoo jeng te réew nag bu jeng amee rek foo muy jëm du baax moo tax may wax ni toll nañ foo xam ne dafa laaj dialogue jaloog bi mu laaj nag du dialogue yu fi amoon mooy kenn nay ñëw ne sama dialogue day fekk ñoom acteurs yoo xam ne dañ ne acteurs yu neutre lañ muy société civile muy muy ñi nekk acteurs sociaux yi religieux ak ñi nekk kilifa aada yi ñu toog càmbar réew mi parce que réew mi loolu la attan réew mi attanul fi ñu ko jëm parce que ñëre ña nga da danoon attaqué ñee di menacé naan ku ñu song ñu song la bu demee nag ba réew boo xam ne nag dañ ko bëgg teg ci mbedd bi ko xeex réew moomu li nga bëggoon sax pour say say doom am ko si jàng si sante ci lépp ak li nga tabax ci li nga liggéey day dem ba benn li nga liggéey day mel ni France président bi xaaruñu ko foofu nee nañ ko pour nga yokkute day tegu si jàmm jàmm nag mi ngi njëkkee si ñoom gis nga nit booy jiitee dara ñu dénk la ko bu ko def sa moomeelu bopp parce que amoon na ku fi nekkoon muy Senghor Abdou Diouf ñëw ab Abdoulaye Wade ñëw Macky day dem te dafa am loo xam ne kaddu dafa baax si njiit parce que dafa am kaddu sa kaddu bu la rëccee rek musiba am na te nekkul nag si réew moo xam ne nag dañ ko bëgg a def tonton makku mooy ku ku ànd ak ñun kii ku ànd la ñun ñu si réew moomu dañoo nekk si réew moo xam ne sénégalais bu nekk war nga fier sénégalais yi dañoo amoon fierté si Afrique sénégalais yi dañoo amoon fierté si monde bi mais léegi sénégalais yi tey jii sax dina dem ba benn moment boo naan sénégalais sax da ngay parce que jikko yu ñu def ci politique bi saaga yi xasante booy wax dëgg ñu ne kii warul wax dëgg bëgg fi imposer des pensées unies bu ma àndee kii fu muy xool fa lay xool moom mooy yàlla mooy lépp te moom nga mu leer na ni matul nit bu ñu tollee foofu nag day laaj réew waxtaan te waxtaan bi nag du ñaari parti yu xeex ñu kenn ku ciy diriger dafa war a am kenn koo xam ne day jël responsabilité parce que ñu ko dénk la te ñun mooy religieux yi mëne la mëne mëne saa buñ ko mënee réew mi tegu si yoon 2024 nag yàlla moo xam kii falu man toujours wax naa ko kii falu suba yàlla rek ko xam ku nekk nag da ngay am sa njort am ñoo xam ne dañuy insister ki war a ñi war a nekk candidat suñu borom noppi na waaye nag ku nekk day sabablu waaye sabablu boo xam ne. ci nañu xeex yi sabab boo xam ne nañu duma ñi sabab boo xam ne nañu conserver kooku luy lu dul jëmee réew mi kanam te ñun dañ si wax yaa ngi wax sànq nii euh, dañuy am nguur goo xam ne ku far ci ñun euh, dégg jàmm ku farul ci ñun ñu rëq si ndigg ndax da nga bëgg ju ñu rapport Cour des comptes yi wala waaw mais mi ngi nii retard bu fekkoon tey si opposition bi la heure bi ña nga tribunal Khalifa Sall ni ñu accélérer dossier yi même le dossier de Ousmane Sonko on va l' accélérer léegi nañu accélérer ñële les fautifs ñu teg leen si yoon parce que man je ne peux pas comprendre deux réew mi dox deux vitesses bu rapport bi génnee dama ne enfin que procureur dina autosaisir waxuma nag ay information judiciaire parce que ubbi information judiciaire mooy permettre waa ji mu ñenn ñi def defuñu comme daf mel defuñu dara parce que Sénégal information judiciaire bu la ko ubbi daf mel yow defoo dara duñ la inquiété. loolu la woon waaw mais xam procureur yëngu. yëngu léegi procureur boobu nag bu doon tey ji ñun opposition yeewi la heure bii ñenn ñaa kooku moom la koy wax am na nu muy demee sax si bu xotaan la ñuy fanaani mais réew buy daw noonu deux vitesses sax xam la moo gis nga bu la dénkee réew nga ne carrément du ma fat kenn du ma protéger kenn waa bii passé biir kër la waaw mais biir këram la parce que les ministres de tutelle faut pas nag ñu yóbbu ñu si ay daas ak ay yooyu parce que fa am ñu leen parce que boo waxee ñu ne la gestion euh, le daas et indi ñu benn benn théorie bootu ñoo nar wuju ñaan non ministre non dañu activer la justice envers des anciens dignitaires jàpp leen ci Khalifa Sall bi mu fi amee problème dañ ko accéléré. kenn kenn non dama ne dama ne dama ne yee génn wax. daaj ministère yee génn wax kii ne sans lii lii lii ñoom ñuy wax seen biir man leen voilà ñoom sax wax nañ kon procureur jartu muy xaar lu muy def comme yéen a commencé wax tey jii dama ne bu doon opposition bi la tey doo fa moo wax la beneen firndeel dama ne la dossier yi opposition bi am yi yin am ñii ñu jëm léegi ñu accéléré ko loolu moom loolu moom lu mais bu ñu tollee si réew boo ànd ak ay nit ak da nga leen wax dëgg parce que réew mi moomuñu ko